soo bëggee xam lu ko indi ci li ñuy wax ci gëstu sociologique da nga war a euh, laaj hein, yow sa contexte lan la sa contexte tey muy li nga xam ne euh, méthode la d'analyse d'abord nga jiital l'analyse contextuelle lan moo la wër lan mooy say environnement d'abord yaa ngi nekk environnement urbain nga jàpp loolu dëkk taax yi te dëkk taax yi niñ ko defaree day dafay bari nit ay nit yi nga xam ne ñu ngi nekk ci lu ñuy wax ñenn ñi am nañu alal dëkk fi nga xam ne fi nga xam ne jaadu na aw na yoon ñu ci bari nag dëkk lu ñuy wax moo tax tubaab tudde ko banlieue ci ay zone yi nga xam ne vraiment zone de surveil la te mun na indi problème euh, ndax nu ñu dëkkaale nii mun na indi ay problème lu bari moom la ñuy wax promiscuité euh, ak commission yu metti yi nga xam ne nit ñaa koy dund lu lal tam du jiitu moo xam ne waroon naa ko njëkk jiital sa environnement économique ak social sa environnement économique et social ñii dañu am ñii ñàkk ñu ñàkk ñu ëpp ñu am ñi sa environnement social yaa ngi nekk taux de chômage surtout jeunes yi taux de chômage bi nga xam bo bo bo bo bo bu jéggi taux de chômage soo gisee nit du liggéey te amul ci suñ système social li nga xam ne mun na ko mottali muy par exemple soo waroon tey gunge xale yi nga xamné par exemple génn nañu jàng nañu am nañ diplôme mais am nu liggéey te ñoo ci gën a bari hein. nga tegal leen lu ñuy wax par exemple suñ système hein, euh, accompagnement primo demandeur d'emploi ñu am pendant un an ay allocation hein. loolu à mon avis naroon na tax au moins ñu réduire risque que ñooñu balancer dans lu ñuy wax euh, la délinquance quelque part mang la doon wax aussi ci yenn par exemple soo ñëw ci taax yi boole nit ñi ñu xat nit ñi nekk ci crise aussi seen xëy wóorul dañuy nekk ci lu ñuy wax crise existentielle crise existentielle moo lay poussé hein, ngay bëggati dund ci euh, euh, monde imaginaire monde imaginaire soo ci buggee dugg foo jaar dem ci drogue yi donc ñi nga xam ne ñooy euh, ñuy jël ay trok ak yooyu pour daw réalité bi pour dundal un système de représentation de gën a bari ci ci ci ci bi en même temps nga xool cellule de la société toujours environnement social suñu société lu ko lal cellule de base bi mooy famille famille pour mu mën a jouer fonction sociale pour mu mën a jouer fonction hein, il faut moi une base économique ni nekk famille bi di di di na lo du xëy mo am ñu moyen il faut ñu am lu wax éducation éducation par exemple dîner ak dafa am solo famille nit ñi parce que lool soo famille rek nga structure sociale Une structuration sociale nit ñi suñu buggee di vivre ensemble dañuy teg lu wax les normes sociales les normes culturelles xamné xam ne day boole day boole na lu tudd diine yooyu yëpp soo ko ak citoyenneté hein, mu la nga comportement parce que il faut nous le vivre ensemble hein parce que dañ relation sociale relation de travail donc structure Bobo, c'est très important nous, ñi sax dañ koy reproduire nga par exemple association des oh, tel village ou tel du département c'est valable pour la case masculine. am à mon avis day permettre que des amortisseurs day permettre aussi espace reproduction yar y ñu da nga hein, aussi. Hein, euh, alal la ko jiital lii waroo ko def et cetera société bi il faut que am lu ñuy wax recherche quotidien d'équilibre recherche quotidienne lu ñuy wax cohésion sociale mu am nag ñi nga xam ne ñoom ñooy guide yi ñoo yore loolu les gestionnaires de la cohésion sociale muy euh, marabu yi muy euh, na tout doux. Euh, euh, kilifa aada yi muy euh, prêtre yi muy bon soo demee religion kii animiste yi yooyu nga ñëw ci aussi de notre côté base économique sa environnement nañ waxante un modèle capitaliste la modèle de marché le modèle de marché moom tam dafa am valeur lan mooy valeur mooy xaalis lan mooy valeur mooy me capitaliser lan moy valeur moy nga tekki tekki moy lan ci ñom nga am kër am ngay accumuler des biens hein, moy le matérialisme bi deug nga am auto nga war am ki yoy su teggu ci suñu ade. yi <laughs> ay da nga tekki yoy day indi ay forme nga de passage à l'acte su ma jëlee le dernier qui euh, euh, assassinat bi am Pikine hein, yàlla na yàlla yërëm jigéen assassiné ce n'est c'est pas le prototype le profil de l'agresseur ordinaire néna y a ngenté amul ont amna na pression hein, mu dem keuf quand kooku mu ngi une représentation il faut que qui, hein, ah, xëy na war na ngente te ngente bi faut mu wone parce que société aussi la représentation de société d'accumulation de richesse <laughs> euh, des sociétés de compétition hein, d'amplifier amplifier ay représentation ñi nga xam une ñu position sociale bu xaw euh, le nekk euh, un peu qui qui, qui, ci suuf hein. su ñu demee ci classe moyenne ou bien ñu kii dañuy forcer donc loolu yëpp mën na nous notre société ba nga aussi parce que soo xoolee bu baax nous ñuy rey ñu bari ñu agressé violence yu bari aussi nous koy euh, nous koy euh, teg jigéen yi ak xale yi hein. gis nañ ay xale yu violence sexuelle violence sexuelle bi dafa jéggi dayoo jéggi dayoo. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a eu des faillites. état bi des rôles. L'État a am ce qu'on appelle la charge l'obligation de assurer eh, la la sécurité des biens et des personnes état rek avec mën am appareil sécuritaire légal eu une bombe <laughs> yore nañu grenade yore ay alkaati alkaati suñuy génn militaire ay gendarme arme la ñuy yore yow munoo ko sauf ñu autoriser la des fois port Nous ñoom donc organisé l'état est organisé armée dañ ko encadré police dañ ko encadré mu am ay officiers supérieurs am et cetera et cetera commandement état am un wax commandement territorial état à un moment rek japp nit tay des ko qui hein eh, eh, eh, ci ci ci ci ci ci par exemple am aussi lu ñuy wax euh, tout le pouvoir judiciaire mais yëpp état la yëpp état la donc ñom Donc, war assurer ce qu'on appelle la sécurité des personnes et des biens comment par exemple Dakar Yo man contrôle yi nga xamné da doon am bu njëkk ba ay ramasse ay yoyu et puis mu am ben intelligence mom mo am intelligence ba nga xamné tay amul base de données amul stratégie ba nga xamné ne mën nañ ne kii mooy stratégie de sécurité nga xamné c'est basé sur la prévention d'accord xarañ nañu suñu force de ki ak yoyu parce que meurtre su amee comme bi 48 heures lañu lañ ci tek jàpp mais que les na ba donc si nous formes, beaucoup plus parce que politique lire hein? je te mets à du défi moment, d'un document de politique de sécurité de ce pays santé a un document de politique éducation a un document de politique la protection de l'enfant a la stratégie nationale de protection de l'enfant où est la stratégie nationale <laughs> de sécurisation, de sécurité des biens et des personnes. Pendant ce temps, me disent que l'appareil d'État, l'appareil sécuritaire pour réprimer les manifestations, <laughs> réprimer pour la sauvegarde, ce qu'ils appellent entre guillemets des institutions, moi les mais amoonu moyens, des fois da ngay dem dem des pour nous faire constater c'est un problème <laughs> donc même nous avons les moyens terre à terre nous carburant etc. etc donc c'est un problème alors que la sécurité aujourd'hui nous sommes dans le « ngi à ci le waxuma le Sénégal monde de nga

nan lañu ñu dañ ñëw ak seen gànnaay dañ ñëw ak seen kii ñëw nangu suñu réew yi jël suñu matière première donc les nos états investiruñu investiruñu ci ci ci ci ci ci sécurité da ngay xool ne par exemple suñu yenn dëkk yi nga xam ne yenn pays yu ñu kii ñoom même ñoo ñuy wax ay jihadistes ay machin ay sang lañu au départ donc pour revenir la question que nga xam posée, nga hein, franchement je ma je mets au défi je ne sais na je ne gisuma Nous, def un travail de réflexion par exemple de recherche bon criminalité lu tax mu augmenté quel un indicateur la y le gën a touché ñi nga xam par exemple quel est le profil Hein, des criminels. Est-ce qu'aujourd'hui, criminalité organisée là, ou bien là Base de données, parce que si vous avez une politique, vous avez une base de données. Amoul. Nous avons un observatoire national. Nous avons surveiller. Parce que le milieu urbain, hein, le développement des milieu urbain il faut un déséquilibre. Il faut des réponses de violence, surtout nous avons ñooy les exclus parce que ñu ngi nekk ci jamono ba nga xam ne pour nga tekki il faut nga am pour nga tekki il faut nga arriver à des biens amuloo ko je ne légitime pas hein je ne légitime pas nga dem euh, dem sàcci mbaa dem rey nit pour jël alal je ne légitime pas mais da nga nekk ci benn société ba nga xam ne <laughs> tous les jours nga xool média yi nous publicité c'est l'impérialisme des biens de la consommation yow ñaar drame pour nga problème pour nous, ci banlieue les zones d'exclusion que j'appelle au plan sociologique les zones de déstructuration sociale ou à faible euh, comme cohésion sociale mais les gens sont dans la recherche euh, quotidienne hein, de la survie pas au détriment de l'éducation la transmission de valeurs hein. donc pour moi hein, véritablement Hein, man man man man grand problème il n'y a pas une volonté politique pour conclure sur ce chapitre-là d'assurer véritablement comme nous ñuy def fu ñuy dem mais xolal par exemple jox Dakar mais ñu d'abord solution manque de ko du junior. Moi, véritablement établir, développer une politique publique Il le faut même tenir ce qu'on appelle les assises bon c'est galvaudé dans les assises, mais au moins une réflexion nationale avec l'ensemble des acteurs y compris les organisations de jeunes dans tous les quartiers il y a les conseils de quartiers. ces conseils des quartiers font quoi les municipalités aussi. C'est-à-dire il faut décentraliser la sécurité. Il faut qu'une partie, les compétences, la sécurité de, de proximité, hein, nous djorko les municipalités. Clair. Et maintenant, l'État doit assurer, rester à un niveau très stratégique, très stratégique. Nous par exemple, nous avons ben observatoire national avec maintenant des évaluations périodiques hein, sur les questions, est-ce que la présentation de rapports annuels sur l'état de la sécurité dans notre pays, pour voir quels sont les trucs, etc. etc. Il faut aussi, à mon avis, qu'on donne aux forces euh, de sécurité hein, ce qu'on appelle le secteur des forces euh, de sécurité, les moyens pour, assurer la sécurité des biens et des personnes. Il faut qu'on donne. Il faut qu'il y ait une communication sociale. Il faut qu'il y ait une stratégie de communication. Il faut qu'il y ait, par exemple, partout des lignes. Ben, une ligne verte, tout de suite, tu vois, hein, tu peux faire, tu peux alerter. Puis, exiger que tous les délégués des quartiers, dans tous les lieux publics, qu'il y ait des numéros, etc. Numéros verts, des adresses pour une intervention très rapide. Je pense que Lolo, c'est une de fait Et puis maintenant, il faut aussi que sur le plan social, avons des accompagnements. Il y avait une loi ici qui interdisait ou qui encadrait euh, dans le tout les cérémonies familiales. Hein mais dans ngay xool fii xaalis ñu koy tegee pression pressions, génie pression la ci c'est incroyable incroyable nos fêtes religieuses il y a d'être des des des des des cérémonies hein, nga xamné da lay rapproché ci c'est des angoisses déjà tabaski ngi ñëw nous bon nous les pères de famille on commence à angoisser parce que li ñuy teg dafa bari société bi na teggi yoyu et ça, c'est le rôle aussi de ce que j'appelle le milieu religieux. Il faut que nous khutbe, des trucs comme ça. L'école de la République doit être aussi le prolongement, la transmission de valeurs républicaines, d'éducation à la paix, les daras, tous les lieux de dispense. On doit promouvoir l'éducation à la paix, etc. Il faut donner du job aux jeunes. Il faut donner du job aux jeunes. Il faut qu'il y ait un système social de solidarité. Tegil aussi, aujourd'hui, il y a une mutation sociologique. Avant, da nga doon nekk ak sa papa sa yaay ñoo yore kii nga jàng école nga commencé liggéey yore et qui da ngay xool d'un ngay ne par exemple yo, hein, ah, ngay nekk ak say doom ba retraité continuer de yore say ñoom ay 30 ans 40 ans pas am bulletin de salaire ko am ils n'ont même pas de cotisation pour aller à la retraite cette insécurité sociale aussi c'est le lit de tout tout c'est-à-dire c'est les germes de violence hein, donc pour terminer disons par exemple si le peuple ne sent pas que justice et souvent ils le disent tu vois xaw ndax dëggaloo pas mais da ngay Japonais, nit ñu kii ko agresseur ku la agressé nekk ci bi un mois après ou bien un an même pas nous libérer ko tu le retrouves donc ñoom pour nous, hein, ils te disent suñ jàppee nit buy sàcc hein, mais c'est la vindicte populaire loolu nag dans un état de droit mais face à la non réponse quartier gardien même si les forces de police gendarmerie tu ne les vois pas je regrette tu ne les vois pas donc pour les gens la la la la majorité des sénégalais hein, la justice et la sécurité c'est une sécurité de classe